ami internetu AG Pro TV ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax di dajawaat ak yéen rek ci seen info di jours waaye képp koo xam ni abonné goo ci seen bi ñu lay wax rek daal daw abonné te activé rek li nga xam ni moom moo di cloche de notification bi ngir ngeen di man di am suñu ay vidéo à temps lamb lan koy daal di doore combat bi dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne rek moom moo di Eumeu Sène muy seen troisième rencontre. ki nga xam ne nag moom moo di Eumeu seen daal dina ko rek daan lu tollook ñaari yoon waaye nag combat bii rek mooy seen euh, troisième euh, combat boo xam ne rek war na dox ci seen diggante ki nga xam ne nag moom moo di Eumeu seen nag daal dina rek takkale ki nga xam ni moom moo di Balla Gaye numéro de ndax nag nee na ko rek soo bëree ma daan la soo xeexee ma duma la waaw fa ma la daan jaarale rek foofu laa lay jaarale Euh, ba tey ba tax na nag ki nga xamante si nag moom moo di Balla daal dina xam ne ni la woon nag daal dina wone parce que nag fi rek nit ñi di dëkkale euh, cette fois ci nag dinaa wane bu baax a baax a baax kan mooy dëgg dëgg dëgg Balla Gaye xëy na nag tolof tolof mënul ñàkk ci li nga xamante si moom mooy àdduna waaye mënul ñàkk ci li nga xamante si moom mooy carrière mbër surtout nag seet li nga xam ne rek moom mooy ci làmb jile. waaye ki xam ne nag moom moo di Eumeu Sène moom daal dina xam ne rek man sama wax du ci bari ndax tubaab nee na jamais 203 te nag noonu rek laa koy daal di defee mooy nag foo ma la jaarale woon bu njëkk tegaat la ci rek cette fois ci nag foofu rek laa lay daal di jaaralewaat balla soo bëree ma duma la soo xeexee rek soo xeexee ma duma la soo bëree rek ma daal di lay eh, daan mooy rek kàddu yoo xam ne kii di Eumeu Sène rek moo ko daal di yëkkati daal ko rek teg ci kaw Balla Gaye su dee Aziz Ndiaye nga xamante si nag kenn la rek ci ki nga xam ne rek moom moo di Balla Gaye numéro 2 moom nag daan na xam ne rek. làmb jooju nag ñu ngi koy waaj te ñu ngi koy rek daal di pare doo xamante ne que mosuñu ko sax daanaka pare rek làmb ndax nag combat bi dafa doon combat boo xam ne daf leen rek daal di jaaral dawet nag nekk na nag combat boo xam ne seen bakkan rek la leen ci teg parce que nag Balla Gaye moom su ko kii di Eumeu seen daal di daane rek. mën naa la wax ne rek dafay daal di rek lem ay bagaasam daal di bàyyi li nga xam ne moom moo di diwaanu làmb moo tax nag suñu combat la boo xam ni dañ ko jël au sérieux te xam nañ bu baax li nga xam ne rek moom la ñu combat bi jaral ba am na rek foo xam ne rek foofu la ñu daal di toll. moom Eumeu Sène mu xam ne rek kii di Balla Gaye jaaxal ko te it mënu ko rek daal di jaaxal ndax nag wax dëgg yàlla koo xam ne nag saa sunu dajee rek ma defal la bagage boobu mujj rek la ko sama rak rek daal di defal bagage muy Boy Niang kon nag kooku nag ay balam nee na mëyi moom bala na muñ te xam ne nag dafa daal di jeexal mënul wax ak mënul musaka maccat rek ba daal di may daan loolu moom booy boo rek mu daal di koy génnee ci li nga xam ne moom moo di xelam moom Eumeu nag daal dina jàpp rek ni Balla moom mënu koo sax yëngal moom nag Eumeu Sène mii lii daal di ànd confiance totale boo xam ni jéggi na dayoo ne nag moom nag kii di Balla su ma la jàppee dama lay duma soo xeexee ma duma la eh, soo bëree rek ma daal di lay eh, daal di daan ndax nag man ak yow bokkuñu yàqu nga yaxee te nag eh, maanaam rek kaani doo safa safaat waaye guy nag lu rëy ba pare rek ah, di daal di reyaat loolu nag mënul loo xamante ni dafay daal di nekk moom Eumeu seen nag confiance totale rek la dal di àndal ci li nga xam ni moom moo di làmb jooju le moo gënoon fees ci xibaar yi ñu jox leen dig dajew beneen yoon incha allah.